Midi Culture. cortège ministre de l'intérieur bay waa Tiwaawoon moo def l'accident ci yoon wi benn ca motaar ya ko topp kon moo daal di daanu fay tolloo ko lam-lam ban rawale ko jamono ji ca l'hôpital maître Moussa Diop mi jiitee Dakar dem dikk neexootul kon ak ña fay liggéeye ndax nee na kon syndicaliste ya lépp la ñuy sàkku ca moom dara mënu caa nekk tey di fanweeri fan ak benn ci weeru octobre àdduna wërngal këpp di ci màggal épargne yi tax rédaction King FM defu taxaw seetlu ci épargne eh, ak fii nii ci réewum Sénégal ak jëfandikoo gi daara ju kawe di Cheikh Université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru euh, daal dinay soppi xar kanam bu baax a baax ci ay décor yu koy gën a daal di taaral reportage bi tey façon yi colin yi xale yu jigéen yi nekkee ci biir l'école yi lan ko jagleele li mbokk yàkk leneen mun ci noppee dinañ ci boole nee ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon rubrique bi ñu duppee yoonu gàmmu gi euh, ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition journée internationale écrivain africain itam gan gi ak li yëglekaay yi tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëgg yi moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Mediculture Serigne Saliou Seck ngi la Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu mboolem ku noonu na leen ko xecca bopp ba rek la dugg ak ci yaatal ci ak tënk mu di kon euh, cortège ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ ji sàllo wàllum kaaraange gi jamono ji nag moo nga wutal lii Tiwaawoon waaye fay tolloo ko lam-lam dañoo fa daal euh, def benn l'accident benn ci motaar ya ko daal toppoon moo daanu ba jamono ji kon sapeur pompier daal di koy jël rawale ji ko ko ca l'hôpital xibaar la boo xam si dinañ ci dellu si waat ci ni mu gën a yaatoo ñu wax ci leneen di liggéeykat yu Dakar dem dikk mu mel ni ba loolee sax muy syndicaliste yi ndax ñoom nee nañu daal maître Moussa Diop dafa bëgg a dugg ci seen kuréel googee ba na tuuma yooyu nee dañu koo bëgg a sa du ko nangu tey du ko ba lañ ciy àndal ñenn ci syndicat liggéeykat yu Dakar dem dikk mer bu futu lañ def ci kii jiite seen kër liggéeykaay ñuy ñaawlu tamit na muy doxalee Alassane di porte parole syndicaliste yi. vu que Omar Gueye def na benn sortie au niveau d'une presse en ligne fustiger sa gestion dans l'entreprise interpellé ko par rapport au foncier bi mu ne woon da koy jaay jaayu ko te ba tey fi ma wax yow brique muul tegu ko fa fi ma wax yow kaar yi mu waxoon foncier bi mu waxoon bu ko jaayee dina jënd ay pièces de rechange di ko ci kaar yi nekk ñi nga xam ne ñoo pan jëppi Ablaye Wade jamono Ablaye les bus bleus les Senelec et les Sachok kaar yooyu ba tey yëkkati wuñ ko et la preuve mooy client yaa ngi xaar ci arrêt plus d'une heure de temps duñu gis bis bi loolu amee ci la jóg na day liquider le syndicat liquider le camarade hôpital Omar Gueye Omar dafa lu dul interpellé ko par rapport ak dérive yi mu nekk di def ci kër gi loolu moo tax Moussa Diop di njiital société bi di Dakar Dem Dikk ne ay tuuma la te moom du nangu benn yoon ñu koy chantage quand l'ex-secrétaire général de ce syndicat vient me voir dans mon bureau avec témoin d'une directrice qui était dans mon bureau di demander ay quota lii laa lii da nga ma koy jox wala damay dem presse je lui dis vas-y tout de suite je dis j'ai un témoin man kenn du ma chanteloo je lui ai refusé ça il est parti à la presse te liggéey moo may rey je travaille jusqu'à 23 heures tous les jours recevoir ñëpp disponibilité zéro man damay du kenn laa dul dindi ci loolu ñëpp laay recevoir donc quand ce monsieur veut faire du chantage bu jéemee chantage ça ne marche pas bu jéemee dem tribunal ça ne marche pas. yii les syndicalistes nag directeur Dakar dem di tegg ki leen jiite woon te keneen loolu nag ñu ne duñ ko nangu dinañ ko topp ba mu sës ba lu leen yoon may ñu jël. Aminata Ba tey la alxames fanweeri fan ak benn ci weeru octobre àdduna wërngal këpp di ci màggal épargne. am na ñoo xam ne nee na ñoom xalaatuñu ko ndax soxla yi nga xam ne daa bari lool euh, yu ñëw war a faju moo tax amuñu koppar gu ñuy dénkaane ñu ca des ñoom jàpp ne ak fi jamono toll léeg-léeg day laaj nga dénkaane ak koppar ndax ëllëg bu la soxla bettee rek nga mën a daal di làmb daal di faj ak lu ci mënti am kumba ba lañ ciy àndal. moo xam nga war a jënd kër. war a waajal sa bopp wala sax sa retraite li nga xam ni mooy épargne denc lu am solo la ci dundu doomu aadama ñu fekk ko mu toog ci buntu këram sol baylaat mbaxane ba ca bobba ak i marakis bàyyi taala fay wala tollu ci juróom benn fukki at xam na bu baax njariñal denc nekk nañ jamono yoo xay nekkatu jamonooy dimbalee ci ka nga war a dimbali épargne moom mën na wax ne lu am solo la ndax nit ku ne war na waajal ëllëg soo waajul sa ëllëg soxla mën na ñëw bett la nga mere ku la deful dara denc moom moo gën a wóor rawatina ci jamono ju ñu tollu nga xam ni kenn dimbaleetul kenn lii di xalaatu Fatou Ndiaye. dina xaw a difficile daal mais da ngay takk si biir rek des fois di nga épargne parce que da ngay sédd euh, du su ñàkk daal bi nga xamante ne des day dëgg rek yooyu mais épargne moom baax na fee yemale bëgg bëgg yeeg rek parce que dépense moom du du kii du fixe yaa xool li nga xam moom la sa poche àttana nga def ko sa mu xalaat ak biram sen di gérant wu magasin di xam le ni même su ko bëggee lii di charge yi kawam mayu ko ko ak sa yaay ak sa papa ak say soxna sa sa papa dooleem bariwul te yow yaay taawam te tam yow am nga ay rak mais rak yi nga am tolooguñu fi ñu war a liggéey pour am xam boobu yow rek yaa visé sa papa sa papa amatul loolu yow rek yaa visé instant boobu nag il loolu liggéey pour mu toog ci say loxo day jafe. épargne wala denc di moyen bu wóor ngir faj say aajo ci saaboo ko soxlaa waaye nag seetlu gi mooy ñu bëri ci sénégalais yi umpalewuñu ne denc lu am solo la waaye amaana li ñuy am tey matewu leen ba ñuy sóoraale ëllëg. jaajëf Kumba Ba ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. ñu riir utali daara ju kawe ji di université Cheikh bu Ndakaaru ak na mu tàmbalee soppi xar kanam ma nga noonu Serigne Saliou Seck daanaka boo fa ñëwee dootoo koo xàmmee ndax soppite ga ca am muy ay drapeau réew yu bari yoo xam ni fësal nañu ko fa nataalub euh, kanu ko duppee di Cheikh Anta Diop ak yeneen i coppite yu am solo étudiants ya àndandoo di ko rafet lu ndey Mati Dieng ay liggéey yu ñuy amal ca université Cheikh Anta Diop tàmbalee soppi xar kanamu daara ju kawe ji kenn ci ndongo yi fay jàngee université bi da doon toll fële ñëw ba dugg si da ngay gis que ni soo tolloo na le da ngay seen photo Cheikh Anta Diop ce qui montre que ni yaa ngi dugg si biir université bi mais gis nañ ni directeur bu bees bi ni mu changé université c'est-à-dire defaat bi defaraat defaraat petit patata mais loolu yëpp peinture bi gaa baax na mais amoon na loo xamante ne moo gënoon nekk priorité ay drapeau yi réew yu bi nataalu toll di ko seen jardin public pavillon yu ñu penturaat mu yees ba ci pavillon A bi fa gënoon a màgget sax ñu beesalaat ko terewul ndongo yi ne am na lu ko gën a jàmp gis nañ ni ñun en tant que étudiant amoon na yoo xamante ne nii moo gënoon a nekk lu yaaxamte comme lu ci mel ni yoon yii nii xam ne fii su tawee day taa étudiants yi rafetlu wuñu ko ñu jox la budget ay milliards nga dem jënd ci ay potu peinture xam nga ñëw defar defaraat dëbal dëbal te Cheikh Anta Diop gars yi dañ ko waroon a boole ko ci programme bi di koy jàngale nit ñi sénégalais xam kan mooy Cheikh Anta Diop liggéey bi ba noppi di ñaan mu bañ a ci ñoom décoration bi on peut dire le nouveau DG xëy na aussi moom dafa ñëw bëgg tamit def lu xamante lu ci moom il me disait que ne carrément que nag c'est juste que aussi bi quoi yi du nekk loo xamante ni dafay a takk wala ci daara ju kawe ay liggéey ngir taaral bërëb bi ndongo yi di sàkku ci moom mu bañ a yam rek taral waaye fexe ba sen gis seen bopp waaye sen ba Cualum gis seen bopp ci wàllum nekkin ci daara ji ndax seeni jafe-jafe bari na ba àgg ci lool nday Mati Dieng reportage bi tey sax wàllum njàng ak njàngale bi lay euh, doon jëm ci euh, ñenn ci élèves yi ak nanuy solo ci biir daara yi am na ñoo rafetlu ñu ko ñu du gu yu ni dara ku ne la nga am rek ngay sol waaye nak way juri faaw ñu bàyyiwaat xel bu baax baax ci anam ya nga xam ni la gone solee di génn kër ga ay sa jamono ji nongo daara yu bëri jàppee seeni lekkool bërëbu jongante ci wàllum solu ak ñoom seen ndaw mi moom di nongo daara di xamle ni loolu dara nekku ci teg ci ne moom sax da koy def man maa ngi ni sumay may damay def sama cheveux bu gudd def sama maquillage l'essentiel daal na nga xam ni la yóbbu école rek c'est ça l'essentiel ndaw bu jigéen bi di dëggal jëf ji nongo daara yu bëri di def loolu moom dëgg la élève yi léegi jàng yóbbatu leen dañuy dem di concours sañse di maquillage ak ay lettres yu bees ak dal yu bees la plupart sax ñu ñëw di jàng bëreetu jàngatuñu dañuy ñëw waaw sañse moo leen fi indi wala ay xaritoo wala ay farantu élèves daal ñu bëri jàngatuñu Fatou Kiné Niang di ñaawlu loolu teg ci di joxe ay matuwaay fashion daal concours sañse ku dàq sa morom mais up mooy lool parents yi aussi faaw ñu leen di di xool li ñuy def nga xool parfois ay yenn solin yoo xamante ne si du n'importe quoi daal on peut dire mooy loolu faaw ñu xoolaat seen solin nag ni ñuy defee yëpp mooy loolu ndax élève buy jàngi si da xam ne école moo la indi booy def tamit sansa nga xam ne moo la yóbbu. bu njëkkoon l'école dafa nekkoon bërëbu sàkku xam-xam waaye jamono jii ndaw ñi bu ñu fa demee dañuy nekk ci yeneen yitte te loolu mën na leen tàddeel ci lu bëri. Aïcha Sall lycée Thiaroye jàpp jàmm gën si Kambaaw utali aéroport international Blaise Diagne di moo fa jot ba tegal fukki simili. pàcc boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. fay na la Kumba Ba ca Niger moom fukki doomu aadama ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan ci ab euh, base militaire bu ñu fa song ay doomu aadama ñoo yor ay ngànnaay kon daal di song li nga xam ni moom mooy base militaire boobu mu ngi am ci guddik euh, talaata jàpp ba euh, ci base bu Blabrine mu ngi nekk ca bët gànnaax bu Difa nekk ca sud est kon bu réewum Niger jege lool réewum Nigeria fa nga xam ni kon groupe djihadiste bi di Boko Haram fës nañ fa bu baax fukk ak ñaar ci ay soldats kon ñoom ñoo ñàkk seen bakkan yeneen juróom-ñett jëlee ay gaañu gaañu ci boobu le song ci base militaire moom mooy ki ki di jëwriñ ji yor wàllu kaaraange ga foofee ca réew bu Niger. ca Cameroun nag jéey ja nga xam ne am na fa démb ba tey ñu ngi wéy di amal li nga xam ne mooy ay recherche ca sàm la nekk ca bët sow bu réewu Cameroun kon recherche ya di seet gi ñu ngi ko doon gën a amal bi kon ci ci ci alarba gi kon di mercredi fanweeri fan ci weeru octobre gannaaw ba nga xam ni suuf sa màbboon na fa guddi kon altine jàpp talaata bilan bi nag diis loolu ndax néew ñeent fukk ak ñett ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ñaar fukk ak juróom-benn ci ñoom di ay tuut tànk kon euh, recherche yi nga xam ni kon dakkaloon na dakkaloon nañ ko tey ji ci alxames gi dañ koy tàmbaliwaat lépp rek jëm kon ci xool ndax amul ñeneen ñu nga xam ne des nañ ci suufu décombres yi. ñu daal di dem ba réewum États-Unis ak Donald Trump mënu bëgg a yëkkati ca palaasam cadre bi nag nee nañu dinañu daal di euh, woote niki tey ji ci alxamis ji kon lay tax ñu mën a ne. kon tey ji ci alxamis gi ni ñu ko waxee joor muy étape bu formel waaye bu am njëriñ lool ci procédé ci procédure bi ñeel kon jëlee fa ki nga xam ne moom moo njiita réew ba fa di euh, Donald Trump chambre des représentant kon euh, tey jii ci alxamis gi fanweeri fan ak benn ci weeru octobre lañu war a voté kon résolution boobu nga xam ni moom mooy fixe cadre euh, bu ñeel bi ko sion waaye nag bu fekkente ni nee nañu kii di Donald Trump nangu naa coopéré maanaam ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy enquête

xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Ma Jaxate Sarr maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck nuyu soxna Dior Mbodj di nuyu it yu rajo King FM. fay naa la Pape Sarr kon CAN 2021 éliminatoire ya Aliou Cissé liste bu mu fësal ñett ñu bees yokku nañ ca. ñett ñu bees ñoo ca yokku muy di musa Ndiaye mu nekk défenseur ci gaynde yi amagul ñaar fukki at Naby Sarr nekk ca Charlton ak Baba Thiam nekk ca Kazim Pasa ca championnat bu Turquie doon listu ko ñaar fukk ak ñeenti joueurs yi nga xam ne ñoo war a bokk ci ñaari jongante yu njëkk ci éliminatoire bi mu di Congo fukki fan ak ñett fii ci Thiès ak Swatini fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ñu teewlu eh, kii tàggat gaynde yi di Aliou Cissé. Sénégal euh, Congo bi war am fële ci ci Thiès le 13. programmation match bi nag euh, waa ñoko ñoko def. muy programmation bo xamné ñun mën naa wax ni que euh, arrangé wuñu parce que da fay fekk ben entraînement rek nañuy am am le jour yu bëri yo xamné ne dinañ jouer le 10 am na ñoo xam dinañ jouer le 11 bu ñu naree ñew egg pratiquement benn séance rek nañuy am. euh joueur yu bees comme ni ngeen ko xamé équipe nationale mom ossature bi sax mën naa wax ni que mi ngi fi batay moy ossature bo xamné depuis 4 ans mo fi nekk. Tour boobu moo demoon Coupe d'Afrique bi nek finaliste tamit euh, mais petit à petit tamit amna ay xalé yo xamné xalé yu xarañ yu nek ci yenen club yi ñu ngi leen di suivre euh, exemple euh, Naby Sarr muy xalé bo xamné Angleterre le football Charlton défenseur central le Mame Baba mu nek xalé bo xamné mi ngi mi ngi Turquie moom tamit difa def ay ay performance yu yu intéressant je pense que genre match yi aussi daf ñu war permettre que xalé yi nga xamné bu mosuñu ñëw équipe nationale ñu mën ko ubi pour que ñu mën leen gis man xam sen sen niveau c'est une euh, mentalité par rapport à l'état euh, euh, état d'esprit que xam ne moom di depuis depuis quatre ans wala cinq ans Moussa Ndiaye xale boo xam ne la ñëpp xam au niveau au niveau local bokk na ci équipe bi demoon Coupe du Monde U20 euh, équipe de demoon tamit CAN U20 yi mu nekk xale bo xamné amna avenir bu baax a baax a baax baax waaw diko ñaanal rek euh, mu ñew fekk ci équipe bi ci jamm foog na tay euh, ñew bok équipe ak ñom kalilu Koulibaly ñom Salif Sané ak ñom Cheikhou Kouyaté lolu de jangat la ci mom je pense que lolu c'est important donc mais signal le tamit pour woon ni que équipe nationale bi du équipe seulement ñoo xamné ñu ngi jouer bitim rew mën nañu jouer ci réew mi fii bokk ci réew mi nekk ci équipe bi te ñu mën la woo équipe nationale je crois que loolu moo gën am importance. jàpp leen ne ginnaaw ñetti jours yu bees yooyu daanaka ñi ci des tàmm nañu leen ne mais ku Mbaye Niang ak Edouard Mendy ñi blessé woon euh, bii weesu euh, daañu dikkaat ci groupe bi Diao Baldé Keita moom euh, ci déggoom ak Aliou Cissé du bokk ci gi ñaar yi lay jongante ndax soxnaam mooy waajal rek ab daal di am ak lire loole mooy xibaar bi Aliou Cissé daal di. joxe Serigne Saliou Dior Mbodj ñu daal di wax rek lu soxal euh, coupe du monde U17 kon Sénégal mujjee naa qualifié ci huitième de finale. démb lañu ñu daal di daan ñi nga xam ne ñoo di waa pays ba ñetti bal ci euh, benn muy seen euh, ñaareeli ndam ci gile compétition Pape Matar sar moo dugal ñaari but yi Aliou Balde daal di rek di dugal ñetteeli but bi bu ñu tollee ci njeexitalu match bi ndam li nag nga xam ne Sénégal am na ko yokk ci ndam la mu amoon diggam ak États-Unis ñeenti bal ci benn tax na ba équipe nationale bu Sénégal U17 bi daal di am place am ci 8e de finale yi euh, bii nag doon euh, muy bok ci gile tournoi ren muy amé ci Brésil la. Coupe CAF kon essai bu Bénin bett na génération foot benn la ko dóor ci dara. demb la won ci stade la Dior bu Thiès donté nak euh, ñom wa deni Biram Ndaw yi génération foot ñoo dominer match ba yépp waye muju ñoo dugal ba match bi démé ba tollu ci 73e minute ci la waa Bénin yi daldi di dugal Copon Maxime mo fa jaar donté nak amna ñu ak njàkka rek gis ci euh, défaite bi am nañ ñu leen ci metti waaye capitaine génération foot bi moom euh, ma ngay am yaakaar ne daañu qualifié ginnaaw match retour bi euh, Djibril Calaw jaw lay wuyoo. waaw défaite bi comme li ma wax défaite bi métti woon nañ trop ñëw à domicile bu ñu ñëwee à domicile c'est pour gagner match bi maintenant perte nañ ko xam naa récupération moo doy la parce que boo gisee voyage bi ñu def métti woon na te que aussi nga toog deux jours noppalu pour mën a jouer benn match loolu dafay xaw a difficile maintenant dóor nañu léegi dañuy jéem a juste noppalu rek pour jéem a jëli qualification match retour euh, yaakaar naa occasion yi occasion yu dugalu dugalu rek moo problème bi ah, comme ni occasion yi occasion yi parce que équipe bi mu ko gisee équipe bi ñëwul pour dafa ñëw pour wane nii dafa ñëw tax ci ay te ñu amoon nañu occasion yu bëri fu mën a dugal mais dañ ko manque de concentration la rek léegi dañuy jéem noppalu pour jéem a entamer match retour dinañ ko def parce que on n'a pas le choix amuñu choix bi te xam naa suñu équipe xam naa sama coéquipe bi xam naa ni ñoom bëgg nañ qualification te am nañ mën-mën bi gën a concentré wu gën a am bëgg-bëgg bi te xam ni ko qualification mën na nekk nekkul difficile SAEFC Génération Foot match retour bi ca Benin juróomi fan ci weeru novembre gi ñu jëm lay daal di doon foofu la ñuy ndarkape xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax papa ma jaxate saar xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér. te woo dañ koy tàmbaleek yoonu gàmm gi ma nga noonu niñ ko baaxoo di def rek ba ñu li nga xam ne moo di gi tey nag Serigne dafa eh, ci gu tedd gi di Khalifa ñu ko taybatun li tibi usuliha wa madinatan sama ci rubrique bi ñu yoonu gi waye nak ñuy waxtane serigne Babacar si radiyallahu taala anhu kemaani serigne Babacar si lepp mo ngi doore bés bi mu gané aduna yamoko ko atum 1885 fekk booba Seydi Aji Malik si radiyallahu taala anhum mo nga won ci walo tok ci suufu garabu Dakar di bindé téré téere bi nu tay sir fofé sax lan ko fekk ku bataxal bu ko ndar di ko xamal ni soxna sa amna guné gune ca bobé ci le Seydi Aji Malik si né Babacar si ñewna motax ñuy wax ni serigne Babacar si mom ak tay sir ñoo masé ndax biko di bind ci la gane aduna gannaaw lolu ci lay El malik si maudo and ak Serigne Babacar Sy utalee Tiwaawoon kéemaan keman yamu fa doon wané tax maudo woko xamal ko né ñom ñaar mënatuñoo bokku dëkk bi di Tiwaawoon ndax xam-xam ak lèr yu bëri ci la Serigne Babacar si démé ci tëngee ci liggéeyal fa yalla lu bëri ba noppeet bind fa téré yu bëri ba ci woyam wu si wii di talaaxat la Shamsul Huda ku si fat duja li ma nixtida ci ca ji tam la tok ba niko bayam wolu waté mu fekk boba elazi malik si maudo dafa ànd ak tawat waaye xamal ko ni la dale ci seyduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam jaar ci cheikh ahmed tidiane chérif jaar ci mouhamadun haali jaar ci alfaahima yoro jaar ci cheikh umar futiyu ba ci moom maodo mag ñooñee lépp li nu yore woon jox nan ko ko te nee nan babacar si rek moo leen ci doy bokk na itam ci kàddu yi ko maodo mujjee wax mu wàññi maslaa gi ba mën a doxal diine bés bu fi bàyyeekoo ci la ko sëriñ babacar si radiallahu taala anhu waxee ni maslaa gi bés bu ma la noppee gis yow maodo rek dinaa ko tekki suuf te doxal charia li koy dëggal bi fi Maodo bàyyeekoo am na bës am naar jóge ca gànnaar ñëw di jiite ca jumaa yi Tiwaawoon Serigne Babacar Sy fekk leen fa ñuy jullee taxaw ci seen kanam ne leen sëlmal leen ñoom ñëpp ñu maase sëlmal mu xamal leen ni naar bi warul jiite waaye imaamu jàkka ji mooy ki war a ndax loolee la charia wax bés boobee ci la maam Mansuux mu baax ma ne faaw mu bind jëf ju ni mel ndax mënatu koo muñ daal wax ni fa waa xajaban li cheikhi laxat chaluaq salaatul jamihiina walawlaaka salaatal afsha duha bi taxliitin yaa humul xadgirina daal di wax ni fawaaja ban di tekki ni mu yéemoo ci sëriñ Babacar si waaye na mu defaree seen julli googee ndax xam-xam bu bëri moo tax sëriñ Babacar si ne woon doon na baayam di El Hadji Malick si Maodo juróom-ñaari at mu soog fee jógee mu yokku ci ne moom sëriñ Babacar si mooy ki nga xam ni bi mu xàmmee loxob ndeyjooram ak loxob càmmoñam ba léegi mësul def lu naqari yàlla sunu borom sëriñ Babacar Sy tëj wax ja ne ngir firndeel fa ko yàlla teg sëriñ Babacar Sy moo xamle woon ni ëllëg yowmal xiyaam li iblis ak na di bon bon bu sàkk woon ci yàlla sunu borom mu jéggal leen dugal leen aljana yàlla dina ko ruus ci barkeem moom sëriñ Babacar Sy lii mbokk yi lañ leen andiloon tey ci rubrique bi ñu duppee yoonu gàmmu gi di leen jox dig daje incha allah. mu ngi noonu kon ñu woyal euh, pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan daal di euh, jàll wax ci leneen ci ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition journée internationale de l'écrivain africain. mi ngi noonu nag mu nekk bés yoo xam ni ñu ngi koy waajal bu baax a baax euh, am janoog taskatu xibaar yi lañu amoon ci lu ñu mel nag seen njiit président Alioune Badara Bèye daal dina dikkaat ci programme bekk na mun a tëddee lépp waaye it wax na ci jafe-jafe yi ni jànkoonteel ñoom bindikat yi Fatou Sow. kurel gi ëmb bindkat yi fii ci Sénégal ak kurel gi ëmb poète nouvelliste ak essayiste niki ki démb lañ doon amal ab ndaje ngir fësal seen programme bu ñuy amal ci ñaar fukkeel ak juróom-ñaareelu édition bi ñu jagleel bésu bindkat fii ci Sénégal Alioune Badara Bey mooy président écrivain à partir du 7 dinañ fi dajale lu mat euh, ñaar fukki dëkk ak juróom yi nga xam bon dinañ ñëw toog du 7 ba le 12 moment bu mag bi nag moo cérémonie d'ouverture, ouverture bi am aussi ay commune communication ci conférence communication yu yu kawe yi nga xam ni Ismaïla Madior Fall mooy président colloque bi mais dinañ fa am ñoom Penda ba ñu ak dimension ak professeur yu éminent yu jóge Afrique. moom mi lay di ñu xamal ni dinañ taxaw temm ci jafe-jafe yi bindkat yi jànkonteel. yenn écrivain yi ñu leen ñu génn seen dëkk ak yooyu parce que liberté yi faut permettre leen sax ñuy dem ko dellu si donc loolu nag dinañ ko wax. ci boobu leen ndaje itam kenn ci bindkat yi porox ndollu na ci ngir xamle temps bi ñuy def ngir bind benn œuvre euh, quelques lignes de la sur une période de ans donc tout dépend euh, Association des écrivains du Sénégal ci seen jot nañ faa xamle ni dinañ fësal lauréat yu ñuy jagleel ay prix ci boobule programme te lépp luy naxasal mbind mi wala di gàllankoor bindkat yi daan ci ut ay saafara. Fatou Sow jaajëf ci boobule compte yi leneen lu nuy waajal fii nii ci diwaanu Ndakaaru moo di Dakar Musique Festival. loole nag euh, dina am juróom-ñaari fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre yu ñu dëkkmal lañ ca jublu rek mooy fexe ba jëmmal lépp lu jëm ci aada ak cosaanu réew mi waaye nag réew yu bari dinañu teewe ndaje mile may mën a ñing événement biñu ñu Dakar Music Festival liko taxajuk moy a molem luy aada ak réewum Sénégal jaarale ko ci musique électronique Gaston Madera di organisateur bi l'événement di ci indi leeral. ben dëkk la nga xamné Adam ak cosaanam gars dañ ko soxla dans le monde entier bitim réew gaay dañu soxla aada ak cosaan boobu léegi suñu aada ak cosaan il faut ñu woné ko il faut ñu woné suñu bop mais ñom tamit dañu am aada ak cosaan léegi dañu waxti seen aada ak cosaan bu ñu ñëwee Dakar et ñun suñu aada ak ñu dajé mën nañu def ben festival bu neex. bu weesoo aada ak cosaan le festival dinañ ci amal ab journée de reboisement ngir gën a sàmm alam bi léegi nag si festival bi euh, dañu décider ni festivalier bu ñëw jóge bitim réew dina jënd benn garab ñu planter garab bi ñu arroser garab bi pendant un an ñu toppatoo garab boobu léegi nag garab boobu mu ngi jar euh, euh, ci junni ak juróom ak juróom-benni téeméer loolu la ñuy jaayee suñu festivalier yu jógee bitim réew dañ leen laaj ñu ñaan leen ñu jënd garab du moment que loolu bokk na seen aada ak seen cosaan. Dakar Music Festival jàpp nañ ko ci juróom-ñaari fan jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci novembre te atum ren mooy nekk ñetteelu édition bi le Maïmouna Gningue jaajëf Midi Culture ñu jàll ci nataal bi le portrait du jour tey ñu leen di gën a xamale ak Marouba jàngalekat la waaye tamit bindkat bu ñu ràññee la fësal nag ay œuvre yu bari ba ci gën a siiw bokk na ci la collégienne ñu teewloon nataalam ak a Dieye Maruba Fall ñak na bayam ci atum 2003 mu nak jangale kat ci lu ëpp fanweeri at Mom nak jangale katu français la won diggante 1973 ba 1993 ci daara yu bari lu ci melni collège Martin Luther King lycée Blaise Diagne ak lycée Limamou Lay ci octobre 1999 mu nekk proviseur ci lycée Boujoual Fadiout La ta muy delu Dakar ci atum 2004 ngir jité lycée Galandou Diouf ba atum 2006 mu nekk bind katu roman poésie ak théâtre ci nonu bind na ay téré yu bari lu ci melni recueil poème poème Cri d'un assoiffé En 1984 ak bu mujj tamit recueil de poème mu tuddé ko Chasseur d'éternité en 2012 téereem bi si gëna a siiw collégienne mu publier ko ci atum 1990 mu si wax nak ab élève bu bëgg farantu ak ki koy jàngal wax na si tamit jafé jafé yi ñuy ci biir daara yi jot nañu ko tamit Ragné lu bari en 1981 mu 3 troisième prix du concours théâtral africain en 1987 le prix international de poésie mu défé ko ci symposium littéral de Brazzaville 1991 le prix de la meilleure technique théâtrale chez journée théâtrale de Carthage En 2012 Mounek, nekk lauréat de la deuxième édition du gala de la reconnaissance ca ville bu Guédiawaye mu agence culturelle Corail Production Maimouna Dieye midi culture ñu jàll ci gan gi. midi culture ganu xibaar. ganu xibaar yi ñuy dalal Koul moktar. ma nga fekk baax ca njaareem moom mi la waykat la nag génn na ñetti single wax na ci way yooyu mu génne ak album bi muy waajal waxtaan wi le mi ngi ko dénk Ndeye Mati Dieng. Koul Mokhtar ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey yaay suñu invité ci suñu journal midi culture waykat nga waaye rap nak moom nga ëpp looy def ndax mën nga ñu euh, fàttali rek sa jaar jaar. waaw ci tënk samay jaar jaar def na Mbàkke la commencé fa la commencé. fa laa commencé def ay maquette ay concertu mbedd yenn yi nga xam ne ni moom mooy moment bi ngay bëgg am fugg ci li ngay def quoi tu vois donc Mbàkke laa commencé lépp nekkoon ci benn groupe bu ñu wax Big House groupe bi ñu dem à un certain moment euh, man ma def sama carrière solo ku nekk dem defi say activité donc euh, mën naa ne Mbàkke la lépp kon commencé euh, li tax ma ñëw aussi Dakar par le biais de mon oncle Amari Guissé ba ni may duggee Natty Dread Entertainment bu xumaan pour euh, commencer professionnaliser nak li may def quoi di génne ay ay ay ay ay ay parodie parodie yo xamné ni nii mo ñu invité woon comme parodie jaaga bu nekk sur sur journal rappé ak euh, cuuraay johnny bu yeme aladay moxtaar wax nga ko delu si nga ci sa diggante ak euh, rappeur bi di gën man xumaan ñu gis nak ne génne nga ñetti single ndax mën nañ xaar ëlëk nga génne album wala ci fan yi ñu jëm waaw mën nañu xaar album parce que ñu ngi nekk diko ko liggéey ñu ngi nekk diko ko liggéey un album boo xam ne ni vingt titres lañ ci lañ ci bëgg a def donc euh, ñu ngi koy liggéey ak euh, Naty Droid Entertainment ek ak Ñoos euh, mooy structure bi ma yor ci beneen côté bu parallèle bi donc ñu ngi ñu ngi waajal def album boo xam ne nii dina am ay facettes yu bari amana bi nga commencé ak léegi ci rap rek nga nek di yeungu ndax meun nañ xaar ëllëg nga def benen musique bu bokul ak rap. waaw waaw bien sûr bien sûr parce que dans comme ni ma la wax rek ci sama biir album ding ci fekk facette yu nekk parce que bu dul dara sax man je fais partie d'une famille créole donc de def may war. tay ma laal ci yenn touche yo xamna ni touche traditionnelle la te boo xoolee ci samay même si samay son yu moderne di ngay gis ay soit marimba mi ngi ci wala sabar mi ngi ci donc euh, pour juste rek wane ne sama couleur ak sama sama tradition sama sama tradition voilà mom moo wara permettre ma dugal ma varier son yi. Cool Mokhtar ndax mën nañu xam sa ay projet lan ngay waajal. Euh, voilà di waajal album bi album bi tamit dina accompagner ak ay tournée ay tournée scolaire ci biir 2020 bi ay tournée yoo xam ne nii national dem ci région yi. ci banlieue yi tamit euh, prévoir nañ fa def ay.

jaajëfal nañ la Ndeye Maty Dieng Midi Culture ñu jàll ci li ci yéene kaay ak Serigne Saliou Seck gelwaar moo ni woon baaraam bu ñu tàllal joxoñ la waaye juróomi baaraam yu ñu tàllal kuy dem yalwaan la coowul 94 milliards yi bu ci kenn yaakaar Ousmane Sonko di ca yalwaan wala di ca sàkkuy ndimbal ndax Sonko nee na fa mu nekkoon jugewu fa te daw ca saala yaay ndeer ubbil la tribune journal bi des bi ne usmaan Sonko yokk na ci daay gi pétrole ndax nag démb àdduna sépp dégg nañ ko mu ni bu garab yi doon fàq suuf si jalaañoo itam du ko tax a dellu gannaaw ci tuuma yi mu tegoon ci kaw Mamour Diallo naam ne ay xupp ak i arto ngi bàyyeekoo fu nekk jëm ci kawam Sonko yokku ci ne nëpp-nëppal tamit mënul tere mbir mi leer ndax faawu ñu dem tribunal te nag Mamour Diallo ñàkk yore firnde moo tax mu làqatu ci plainte tuuma waaye nag ci kàddu Ousmane Sonko ba léegi luy jiin njaaga te président Macky Sall mooy njaak moom njaak di président Macky Sall rakkam di Aliou Sall coowul pétrole bekk gaz bi ko toppoon waa CRD nee na du nu teggi seen tànk lu dul ni dafa leer ubbil réew bi ne Abdoul Mbaye ak Sall bi moo leen ëlëm te nag nee na nar ca lu juba di rekk moo ko waral ndax nag doyen des juges mënoon naa sukkandiku ci CREI gi nu daan dóore gaa yi ak gi nu daan daane gaa yi ngir woolu Aliou Sall li jënti ay mbiram moom Aliou Sall sax am nataalam moo nekk ci xët wu njëkku critique yéenekaay ñu làngale ko ko photob journaliste BBC mi siiwaloon ay mbiram La Tribune waa CRD sax déposé nañ ab plainte ca kanamu procureur ngir ñu leeral coowul Aliou Sall moom Aliou Sall magam di président Macky Sall coow li ko moo ñetteelu gi modi ne ku ca wax xeer gi dal ca sa kaw l'observateur ne lolou kay ku ko weddi laajal sori kaba mom sax mo xey nek ci journal futur media ba difa leral ne loyauté deug mo ma sa dox ci digganteem ak président Macky Sall Seydou Gueye mi yore ak jokalanté ba ca palais ba melni kuy tontu sori kaba ci sidou quotidien ubbilie ne kay, Seydou Gueye ne ñak loyal mënul wéso à parti tënk dara ci seen bir ba nopi yow nga genn di wax manam jël sa yoonu bop vox populi ne ciowul ñetteelu mandat bi ndëgg sërëx la go bu ko askan yu moytuul dina tax ñu faté seen seeni jafe-jafe jafe-jafey askan woowee bokk na ci loyaas bu cher le soleil ne loolee moom léegi tey mu jeex ndax nag démb ci conseil des ministres bi président Macky Sall doon jiite xamal na fa gouvernement bi ñu gaaw lijjanti mbirum loyaas bi ba mu féete boor li féete boor kay moo di coppite yi am ci biir PDS di parti démocratique sénégalais ubbil le quotidien journal bi ne président Abdoulaye Wade andi nay coppite ci parti boppam bii di PDS jël Lamet Ba def ko président national des cadres libéraux Saliou Sagna nekkub secrétaire général am ba noppi Seck ak Aziz Diop mi président Macky Sall wax ne ñoo démissionnel seen bopp gars yi weddi nan ko ndax naka nee nañ li góor gi wax demeewul noone si du quotidien lu ci man di am daal Abdoulaye Wade moom tàqalikoo nag Cheikh Seck pët pët tàqalewul mbaam ak noppam ubbi libération yéenekaay bi ne bës bu ngeen xëyee dégg état bu senegal di jàppanteeg Excaf Télécom bu mu bett kenn ndax nag journal bi nee na projet TNT bi nguur gi joxoon Excaf Télécom ci ñaar fukk ak ñeenti barab yi nu ko waroon a yóbbu ba fii juróom-benn rekk lan ca def tax yéenekaay bi jàpp ne diggante Sonatel ak nguurug Sénégal jeex na te ci coow la jëm coow li fi mujj moo di ñeen fukk ak ñetti kiloy kokaay yi neenu jàppe woon ca port bu Ndakaar L'Observateur ne léegi tey coow loolee moom leer ndax na ko oto ba yaboon dorog baak Sénébar sa takk derrière ràññee nañ ka ko moom wàllum yoon itam moo nekk ci page 10 bu L'Observateur journal rue 15 angle corniche bi ne benn waaye ngi nii ñaari ati kaso moo koy yoot ndax nag gelam bu toll ci fukki at ak juróom la waa ji toppoon di yàkkataan guddeeg bëccëg ba far ko ëmbal jaajëfal nañ la baax Serigne Saliou Seck ci li ci yéene kaay yi kon euh, wàllu musique la ñuy tàggatoo bi la jotaay. mu ngi noonu tey euh, woyu euh, groupe Biddew bu bees la ñuy jeexale bi ñu duppee ma teex ma vie nekk woy woo xam si dañ ciy daal di ñaawlu yenn ci salfaañ ñu def ci suuf si ñu teewlu. maral bee ngi yoot bekkoor bi di noot jaayum suuf bi doy na bu ñu nangu di leebal politique ko jiital xaalis a ko boot suuf si la ñuy yoot fanaay nee na moo bañ mu ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yem ak yéen ci euh, midi culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj jaajëfal naa la baax Serigne Saliou Seck jaajëfal mboolem ñi ñu doon teewlu ci 99 point 4 ak ci 3W King FM point canta ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci euh, machine bi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Préra lu mooy lolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci euh, midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg midi culture